ku ne xam na li ki diriger régime bi wax ci affaire góor jigéen ku ko def ñu rey laat ku ko kuñ ko gisee ray la kon jàpp naa ne ñoom la ñuy njëkk a rey wala ñoom la ñuy njëkk a tëj ci ay kaso parce que ñoom ñoo koy publicité ci Sénégal dem nañu nag ñoom ci kilifa diine yépp ci réew mi wax leen li leen tax a jóg ñun pare nañu jeudi lañ koy tàmbali. daañu dem ci képp ku kilifa diine ci réew mi wax la ñoom ca la ñu nekk lan la ba taxuñu jóg fu ñu dem bu ñu demee Touba dem Tiwaawoon dem Njaasaan dem fu nekk toog ak ay kilifa diine di leen tudd mbiram ji góor jigéen loolu mooy ñàkk a ormal kilifa diine yi nekk Sénégal parce que ñoom jàng al quran jaamu yàlla yar njaboot gi tere li l'islam du terre ci loolu lañu ñu bo démé ci catholique yi loolu la ñu nekk ñoom itamit tere li sunu borom tere jëfé li sunu borom santade so démé ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen la même chose doon lañ koy doxalee mais fep fuñu téggone sen tank. diaboliser président diaboliser réew dañ fa teg sunu tank. à partir de jeudi inshallah rabi rabbi tournée bi dana commencer partout dans le Sénégal duñu ci chef religieux ci chef religieux yi ñuy wax ne ñoom ñooy xalif généraux yi du ñu yem foofu parce que dem nañ ba ci ay communes ci communes yu gën a recu reculé nekk ci coin Sénégal di ko campagner naan dafa am ay liste góor jigéen ak liste yu défendre góor jigéen suñu demee ba àgg ci ne ñoom am nañ ñu leen di financer pour bu élection législative jotee ñu defar liste pour wane ne dafa am list buy xeex góor jigéen man dama jàpp ne list boobu ñoom ñu bugg a créer waaye liste yooyu ñuy bokki mooy list bi nga xam ne moo bugg indi góor jigéen restauré ko ci réewum Sénégal mi te loolu kenn du ko nangu.